vitamines yu bëri yi la ñu àndal moom la ñëpp taamu ba ci Alfi moom lay toggee ci suba gi tey euh, Alfi da nga ñuy toggal ay brochette de poulet. tout à fait Pape comme niñ ko annoncé ci suba tey ay brochette de poulet mais pas bu ñu nee brochette rek comme genre kiyaa yi jël poulet bi kese def ko ci ci baton brochette. mu ne loolu laa foog. mais brochette nag Pape Cheikh bu ñu nee nga accompagner ko ak ay légumes. Ah, de façon. ah de donc gis nga poivron yi ñu fi am tey andi nañ bu vert bu rouge ak bu ak bu jaune. donc euh, non seulement daf ñuy andil ay vitamine A ak ay vitamine C. ci mhm. biir togg bi. Mhm. mais tamit dafa am ay antioxydants yu ci yu ci nekk yoo xamante ne buñ ko consommé dina baax ci suñu ay cellules. ba pare poivron Pape Cheikh dafay dafa baax ci ñiy naax. <laughs> kon de buuba war naa lan moo baax ci ñiy naax. poivron kon de boobu war nañ koy defaral booli booli booli poivron. waaw dafa baax ci sunu <laughs> dafa sunu cerveau donc nit ñi dañuy gis ay ay légumes di ko négligé. dafay baax sunu sunu wér-gu-yaram ay passeport santé lañu Pape Cheikh. Pa Pa euh, bi romb léegi day naat ñu ngi di rek. ñu romb sa ginnaaw te mu te ñu ko jox ci poivron yi am nga poivron. bàyyi ma defaral ko brochette boo xam ne poivron rek lañ ci def ci def poulet ñu may ko may ko ci bu ne benn papa am ma defaral la ci mosu <laughs> waat ma may ko nga àggali may ko ci bu ne benn <laughs> parce que day ñaar <laughs> Père Assane donc poivron yi bi ñu xëyee ci suba dañ ko dagg dañ ko dagg ay euh, ay cube maanaam ay carré donc jël pool bi Euh, euh, ah, sans def ci beurre sofia sans def ci dëwlin donc def ci jiital ci poivron yi donc mu may ñu première cuisson boo xamante ne dinañu permettre ñu génnee ñu génnee xollit bi parce que xollitu poivron tamit di ko consommer dafay daf ñuy ballonné ba pare daf ñuy daf ñuy def ñuy euh, bañ a yeggale sax donc xollitu poivron daal le mieux mooy ñu koy mu na nga lekk parce que da ngay naax poivron daa baax ci naax <laughs> <laughs> donc Pape Cheikh c'est le mieux mooy. Eh. Euh, ñuy ñuy dindi xolitu poivron bi. d'accord parce que non seulement daf ñuy ballonné. Mhm. dafay def ay gaz ci sunu biir. Eh. donc moo tax dama jël euh, pool bi. Eh. defuma ci dara defuma ci beurre sofia. Mhm. def ci poivron yi. Mhm. pour mu génn permetre mu ma xoli ko génnee première xollit ba pare may ñu première cuisson parce que en général brochette. suñ koy togg da ngay gis ni euh, yàpp bi dafay ñor mais poivron yi duñu ñor. donc mooy tax nit ñi di ko génnee duñ ko lekk. Ah. mooy tax gis nga booy lekk tout le temps da ngay lekk yàpp bi mais da ngay génne poivron bi souvent donc soo jëlee sa casserole nga taal gaz bi njëkk ko ci def donc dafa lay permettre nga togg ko ba pare mën la may nga xolli ko dina xolli ko ci euh, da nga koy tiital da koy tiital da koy tiital rek d'accord su dee su dee poivron rouge bi nag soo jëlee sa benn paaka bu ñaw mhm. di nga mën a xolli carrément dini xolli bi te duñ duñu abîmer poivron bi parce que moom moo gën a moo ëpp ñam donc ci boo koy tiital en même temps ñu jëlaale téléphone bi. Euh, je pense que yu am solo ngay wax ni ci togg bi a waaw waaw mais bon avant avant boobu. Euh, am nañ ci ay blanc de poulet. Ah. donc dañ ci def euh, kaani. def ci laaj yi dijj na de dina doy waa dina doy bu nekk dama ciy def ñetti ñetti poulet rek ak poivron bu bëri pap nga xam ne ñëpp dinañ mën a am de man nag sama bos na bëri na bëri yàpp <laughs> donc ñu am fi ñu am ñu donc am nañ fi tuuti herbe de province cumin uh-huh. ak euh, fenouil uh-huh. donc moom la jël tam def ko ci biir euh, ginaar bi def ci tuuti citron Pape Cheikh mm-hmm. moom tamit acidité bi pour mu génn relever relever goût bi donc am nañ fi tam ay herbe aromatique muy persil ak coriandre moom tam day dem ci biir marinade bi. man war nañ ma am na brochette yoo xamante nit yi ñu koy defaral dañ koy fanaanal. loolu baax na. baax na parce que dafay gën a permettre yàpp bi gën a tendre. léegi foo koy fanaanalee ci ci frigo bi wala koy teg noonu à l'air libre. koy def ci frigo bi. Ah. loolu mooy su fekkee da nga ay qualité viande yoo xamante ni dafa dëgër. ah yàpp bi su fekkee da nga ay filet wala ay blanc de poulet nga xam ne soo ko sa ay herbes aromatiques pour okay. une bonne digestion aussi dina ci baax Pape Cheikh mhm. su fekkee du ñu consommer poulet ah. parce que baax na tamit ci guddi bi mën nga ci lekk lu la neex mhm. mën nga jël filet wala nga filet de bœuf wala nga jël sa jën tamit remplacer ko ah. mu remplacer poulet yi donc association yii rek la Pape Cheikh ah. soble bi tam mi ci biir ak tomate farci bi donc le temps ngay jël téléphone bi ma assemblé brochette yi bi de non gouvernemental la waaw dolli ci dolli ci tuuti dëwlin téléphone bi 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 bu ngeen duggee ñu euh, jox leen dépense teral leen ba ngeen kontaan euh, ñu jël ki nekk ci ligne bi allo. allo. allo allo. allo. allo. allo. allo. allo. Diallo Dieng kooku la Diallo Dieng. allo. allo. ayca na gaaw ci téléphone bi. ndax ñu mën a jàll ci euh, leneen 628 22 22. wala 88 628 04 05 allo. allo Pape Cheikh. waaw. waaw Pape Cheikh yow man danga may yee temps yi ba may yeewu nga nelawalaat ma. waaye man yi mag muy nelaw ku ko yee war koo yeetal. waaye billaay xool danga may yee ba gars yi war maa jël ci suuf mu coupé. moo tax jël naa la noo tudd ak fan ngay wootee. waaw man man la Bas maa dëkk Diourbel di wootee Diourbel. yee Bas yaa dëkk Diourbel di wootee jurbel waaw te boo ñëwee Dakar jurbel ngay ñibbiwaat. waaw dama ñëwee Dakar Diourbel laay yow kon bàyyi ma jox la bàyyi ma jox la loo waajalee koor gi. waa jox ma lu ma waajale koor gi te wuy ma man nag sama wuy ma sama numéro tey yow naa koy jox ndax ma duggee ci suuf dañ may coupé du day. <laughs> Eh, barki kenn du ñu coupé kenn en fait peut-être réseau bi la wala sa crédit jeex wala je sais pas mais ñun du ñu coupé kenn léegi yaa ngi dëkk Diourbel. waaw nga tudd Bas. Bas Badiane. Bas Badiane. waaw mais Bas ana li ma la joxoon keroog Bas Badiane. jotuma ci moom laa lay wax ne damay joxe numéro bi suuf mu coupé. waaw ak vingt cinq mille tey may nañ la cinquante mille. Eh. waay waay par waxal waay kon de yow naa par force ku la teral. waay par Cheikh Diallo yaa koy corote. ku la may cinquante mille. Ah, daal xoolal kenn du yow. ku koy tos. ku la bañ yàlla dee. amin voilà. <laughs> y aura beaucoup de morts alors. ne raccroche pas comme ça ñu jël sa numéro de <laughs> merci jox leen ko numéro tel euh, euh, na leen jox numéro téléphone bi plutôt comme ça ñu mën ko yónnee vingt cinq mille u keroog ak vingt cinq mille yi tey saa lui fait cinquante mille ñu jëlaat keneen ay enveloppe bu waajtaayu koor lañuy ñuy joxe tey euh, ci yeewu leen bi fii ba dix heures off nga ni bi nga déggee wax ji noo noo def da ngaa naan ñaari doliprane <laughs> allo. allo waaw. kooku. man la ñaxana. yow la. ñaxana ñaxana yaa woote waat. waa man maa woote woon keroog damaa jotul tey moo tax ma woote waat waaye ñoom lu leen dal ba joxe wuñu te ñoom fi daa ko wax jël leen nit ñi ngeen may leen xaalis xanaa sa téléphone daa coupé woon ñaxana bi tey déedéet coupé wu doon de joxoon naa ko sama numéro de ne pas encore ñu jël ko léegi nii ñii dañ may fonton ah service après vente la xaw ma valeur ajoutée il faut remettre l'argent ah. ah oui carrément ah yéen tamit bu ngeen duggee balaa ngeen di couper na ngeen joxe seen numéro téléphone normal lépp ñu mën koo jot mën leen yónnee xaalis bi ñu xool beneen téléspectateur ci téléphone bi allo. alo alo alo allo bon kooku du ñu ko mën a xaar donc Alfi nga roof. nga roof yi nga defar yëpp. donc nii rek ñu koy defee boo boo defee poivron def soble def tomate def def euh, tuuti poulet. ah tuuti poulet légume bu bari ok waaw comme ça nit ñi di consommer ay légumes. waaye kon tey da ñëw bëgg a forcer légume bi. non yow moom yëpp poulet laa lay defal. bu dee buuba benn uh-huh. poulet ak uh-huh. beaucoup de ak beaucoup de légumes et dégg naa ci borom xam-xam yi que ginaar dafa baax quoi boo xëyee lekk ko euh, dégg naa day ibi wër sëkk ah, ci li ñuy wax <laughs> xam naa ni léegi ñëpp ñëpp dinañu ndekkee ginaar désormais <laughs> parce que ginaar dafay ibi wër sëkk alors je vais rejoindre un invité moom mu ngi tudd euh, Elzo joge France di rappeur euh, def ay album defe naa deux albums c'est ça def bërki démb événement bu mag théâtre Sorano mu réussir prouesse boo xamante ni c'était parce que ñi ko xamuñu ko mais ñi ko xam-xam nañ ni il a beaucoup de talent alors Elzo